waaw li ñu mën a wax ci Ousmane Tanor Dieng bari na euh, surtout lu positif day nit koo xam ni homme d'état la comme ni ko ñëpp waxee mais suñu nee homme d'état la mooy dafa yàgg quand euh, ci biir état bi depuis cinq ans jàll ci carrément ci euh, ni ñu koy waxee Abdou Diouf surtout. Euh, Abdou Diouf pousse que jox ko parti socialiste euh, Ablaye Wade ñëw mu nekk ci opposition bi Macky Sall mu ñëw mu duggaat ci état bi donc dañuy homme d'état surtout ñu gis si moom dafa discret maanaam du wane secret d'état waaw du xuloo en politique du dépassé tamit nit nit la koo xam dafa am mesure am réserve koo xam tamit dafa am compétence waaw am na ci wàllu état am ci xam-xam lool lool lool mhm. léegi nag lépp euh, lu ko mën a reprocher rek mooy amaana nit la koo xam ne aussi li mu nekkee à la tête du parti dafa desee nekk politicien comme ni ko Sénégal yi di di di di bëggee charisme boobu ñu soxla woon ci politicien waaw charisme en politique cest ko dese woon. Uh-huh. dafa mm-hmm. a convaincre les Sénégalais pour que parti socialiste mën a rebondiraat nekk un politique de masse. Mm-hmm. loolu mooy difficulté Tanor beneen bi mooy dafa mën a xeex awa ci wàllu politique nag ci biir. ci biir ba nga xamante ne képp koo xam ne àndoo woon ay conviction am ah da ngay soit nga génn parti bi wala ñu génn la parti bi. Hmm. donc loolu daal mooy défaut yi mais li ci des moom nit la koo xam ne référence la ci wàllu état bu ñu doon xool ku discret ku compétent. koo xamante ni un homme d'état la révéler les secrets d'état dañuy jël Ousmane Tanor Dieng. ok mais tamit soo xoolee ci biir parti am sax demoon na benn instant commencé woon nañ di ko ŋaññi ci biir parti bi. Ah, comme nag soo jëlee kaaw Khalifa Sall aussi ay ñoom Bamba Ndiaye ba léegi instant bi après commencé woon nañ dugg si ndànk-ndànk sauf Khalifa pour ah. bien sûr loolu yëpp lu ko waral mooy yàgg nga dafa yàgg xam nga euh, olof dani euh, kii kenn du ko ñëdd nguur kenn du ko ñëdd donc maanaam doo da def ni Senghor comme moom Senghor a ko yar côté boobu rek la jël la inspiré la ko Senghor inspiré woon mhm. bu ko Senghor inspiré woon da day day day dem avant ñu koy jëppi parce que boo fi yàggee trop mhm. dañ lay jëppi te loolu moo mujj am boo xoolee euh, parti bi presque dafa euh, kii baa ngi fi siège baa ngi fi. Euh, instance yaa ngi fi. mais parti bi presque dafa commencé woon vide. surtout bi nga xamante ni ñoom sa Tall Sall ñoom Khalifa Sall Bamba Bamba kii. Bamba Fall Bamba Fall. Euh, Barthélémy Dias dem nañu. ba récemment Maître Moussa Bocar Thiam aussi. waaw ah, ñooñu alors parti bi dafa commencé vide. parce que li ko waral mooy ànd beeg Macky continuer ànd ak Macky Sall sans am candidat mais aussi le fait que moom mu nekk fi tout le temps mënul dem n'a pas su Ah, xalaatul nii war naa mën a dem xajal gaa yi loolu moo tax après nag ñu bari nag xawoon ko jéppi ci biir parti bi ok mais ban avenir ko nga mën a nga ñu mën a wax ci parti socialiste avec la disparition de Ousmane Tanor ah dina xaw a doy waar takk suuf parce que Senghor dafa préparer Abdou Diouf mhm. pour mu wutu ko Abdou Diouf préparé Tanor pour mu wutu ko mais góoma ni vraiment Tanor préparé nag kenn ci ni ñuy ja ni ñuy jàppe préparé préparé mooy ki nga xam ne da teg sa wet mhm. nga yónni ko di ko di ko teg sama ñëpp di gis ni kii kat moom moom amaana moom nga wóolu. loolu nag la ñu gisul woon ci Tanor. Mm-hmm. mais nag texte yi ñoom d'après Serigne Mbaye Thiam texte yi am na ku mu prévoir. mooy Aminata Mbengue Ndiaye en attendant ñu dem congrès. Mm-hmm. mais yooyu yëpp taxul problème bi réglé. Mm-hmm. parce que bu ñu demee congrès foofu pëccëxoo dina am. parce que ku si nekk day bëgg a wane ni amaana man maa yooyoo ci toog. te bu boobaa ah day nekk problème bu fekkee ñoom Khalifa Sall ñëwuñu ñoom Bamba Fall ñoo ñu excluroon bu ñu ñëwaatee nag ah ci kaw Macky Sall dimbali parti bi te nu mu koy dimbalee mooy bàyyi xalifa Sall. Mm-hmm. bu dimbalee parti bi ci côté boobu Khalifa Sall libéral ñoom ñu waxtaan seen biir àndaat sampaat parti bi boobaa parti bi xëy na mën na amaat li ñuy wax seconde jeunesse maanaam beesaat mais nag bu ñu defee erreur mooy teg Aminata Mbengue Ndiaye rek mu continuer héritage yu Tanor mm-hmm. ah day gën a andi ay frustration parce que ay góor gi siis le maire de Yène ba ca maire ya nekk Ziguinchor ñu ngi doon kaas déjà ni Khalifa Sall dafa war a génn kon ñooñu seen xale ngi ci Khalifa Sall kon parti bi rek day gën tas boo métul mhm. gën a faible gën a néew doole waaw parce que soo xoolee si démb euh, euh, sëñ Mbaye Thiam dañ koy invité si émission c'est ce qu'il disait que nii euh, ba mandat Aminata a Aminata moom moo nar a continuer mandat wu Tanor ba ba Aminata Aminata Mbengue Ndiaye ah. pour moi moo nar a ba mu jeex ñu doog a instance instance yi très bien mais piège la ci Aminata Mbengue Ndiaye. parce que ba euh, li ñuy wax cadeau empoisonné parce que bu ko jëlee mën naa am mu explosé bu baax ci ci ci loxaam <laughs> parce que loolu la gën a craindre moom Serigne Mbaye Thiam il malin. Mm. parce que actuellement li ñu wax patate chaude la patate chaude. maanaam li ngay li ngay li ngay doon nii dafa saf. Mm-hmm. dafa dafa tàng xam nga bootu xal olof day wax boot kuy bootu xal ku boot xal sa sa doxin ñaaw. Mm-hmm. boo moytuwul nag amit Mbengue Ndiaye day boot xal. problème bi si moom la problème bi amoon na ci Tanor ah. mais day gën a garaaw nag ci moom parce que ku ñu mënul woon wax ndax amoon la looy xalaat ci Tanor wala loo ko rusee boo moytu doo ko ragale ci Aminata Mbengue Ndiaye wala doo ko rusee boobaa nag problème bi day gën a pëccëxoo foofu problème mooy est-ce que dina attan aussi problème yi ko par rapport ak loolu loolu mooy réalité bi ok c'est une femme boo xam ne yàgg am expérience politique yàgg na ci mais nag divergence ku mel ne Aïssata Sall yàgg na taxu leen a bokk vision noonu mhm. donc yooyu yëpp mën na tax Euh, amaana aussi li mu nekk jigéen chef de parti au Sénégal euh, am na mais nag du parti yu mag. boo bëggee diriger parti bu mag nag est-ce que dina ko réussir loolu mooy question. Euh, pour yow nga gis ni moo war a mën a diriger parti socialiste actuellement. ce difficile Khalifa Sall moo doon l'héritier naturel. Mm-hmm. c'est vrai que amagul sax parti mouvement la am. Mm-hmm. donc bu ñu ko xëccaatee mën na nekk un bon secrétaire général. Mm-hmm. mais bu ñu amul Khalifa day difficile. pour ñu mën a am koo xamante ne dina am consensus tuuti pour que nit ñi militants yi à la base ci localité yëpp. Mhm. mën a wéeru ci ginnaawam. Mhm. du yomb. Mhm. ok donc euh, toujours si Tanor euh, est-ce que gis nga ni honneur bi nga ko waroon rendre euh, rendre nañ ko ko comme soo comparé ak Bruno Diatta. ah effectivement je pense que yaakaar naa ne aussi euh, rendre nañ ko vraiment honneur parce que le président donte Coupe d'Afrique bi fekk dafa nekk ñu qualifié demi-finale. mais teewul jël nañ disposition yi ah président malien sax ñëw na je pense que président burkinabé aussi et cetera et cetera yaakaar naa ne daal euh, la nation euh, wan jox na ko gëddam mhm. jox na ko wàcc waayam mhm. ñaanal nañ ko aussi mhm. ah te képp ku war a wax rek wax nga ci contexte boo xam ne dañu qualifié demi finale jëm finale ah. <laughs> mu nekk beneen ki enjeu mais teewul quand même wan nañ ni respecté nañ ko naw nañ ko dem gi mu dem aussi metti na ñëpp te ñëpp ñaanal nañ ko ñëpp dañu ànd ñaanal ko je pense que daal jox nañ ko honneur bi daal. ok et le concert de Youssou Ndour c'est vrai que aussi yu bëri ñu ngi koy ŋaññi si période bi ñu nekk actuellement ah. période de dee bi. waaw loolu de mooy ban xalaat nga ci am. c'est vrai que am nañ fête mais am nañ tamit tëj. waaw foofu diggante boobu nag bàyyi woon peut deux semaines wala une semaine wala deux semaines fin du mois. Mhm. Euh, doon na gën a rafet.